mbokk yi sëriñ Abdul Aziz Diaw di ku ñëpp ràññee ci wàllum ñaan yàlla boroom xaalima gi du laal suuf macha allah laal leen bant xam-xamam ak gëstoom ak ragal yàllaam loolooy li sabab réew mi yépp ak bitim réew jox ko bopp ay li ko wut xam-xam jaral gëstu xam-xam daf koy jaral dem fépp ci biir réew mi ak sax bitim réew daanaa leen wax lii di sedd li saxaar moom gisuma ku ko ci man Serigne Abdoul Aziz Diaw ni ma bu maa ngi feeg mbir mu yéeme sax ah waaw lan la mu ni ma xanaa li ñuy wax xorom si lan mooy njariñu xorom si mu ni ma bépp diggante bu yàqu bépp diggante bu ñagas xanaa dafa fekk amoo ci xorom si waaw secret bu doy waar la ci boole Serigne Abdoul Aziz jaw mooy borom rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci gàllaaj rus na maa xam nit ñi di ko néewal doole ci xam-xam sangatu bayre moom benn la ci Afrique lépp lu jëm ci muslaay kaaraange dawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ma nga fële ca cees ca quartier ba ñu duppee Serigne Abdoul Aziz Diaw yow mi lijjanti ay kayit mu tëla gàllaaju kër xale bu të ay mbokkam bu lu jëm ci wàllu plante kenn mënu ko ci ci réew mi ndoxum siti góor gu néew kattan hémorroïde jigéen guddul yëg bànneex Serigne Abdoul Aziz Diaw mi ngi ceeg lu yéeme sax yow mi bëgg a jokkoo ak moom 77 571 87 63 wala 78 469 waxoon naa leen ni leen bu ngeen deeti ñaan yi nit seeni mbir daw leen seeti ku ragal yàlla te am xam-xam Serigne Abdoul Aziz jaw moom a ci doy su ngeen bëggee dégg dëgg daal Serigne Abdoul Aziz jaw ku mel ni moom ci Afrique benn la fi. Guy Marius Sagna daf ñoo xabaar mbir mu commencé am ci RTS xamuñ jubadi lu mu ci doon daal Guy Marius moo ñu ko wax ci ay salaire yu ñu yokk indemnité boo xam ne président kii ba directeur bi yokk na ba am na itamit euh, ay yokk salaire ak ay recrutement yoo xam ni CDI lañ leen defal maanaam daal jël trois cent quarante quatre personnes. Hmm. waaw loolu kay du problème. ah oui loolu du problème. Hmm. moment yi nga xamante yaa ngi tëdd si sab daal di si kuraat ñu ni dee ñëw na hmm. koo gestu ni ko may naa la sama kër gee koo gestu ni ko may naa la sama oto bee koo gestu ni ko jox naa la lii ba mu mat nga daal di dee ñiy miraas moom bu ñëwee seen yoon nekkut si loola hmm. waaw ba ngay ànd ak sa sago nekk amoon droit di def loolu lañ reconnaître mais fi ne nii ñoo amuñ lii mu def nii lépp amu si droit comme que amu si droit nag la reconnaître uñ ko hmm. léegi nag ñi nga xamante ni jëlaat nañ leen it ñoom nañ sóoraale ni ka nga xamante ni mooy doon directeur bi bu ñëwee ñëpp dana leen laaj ñan ñoo fi mujj a ñëw. waaw ñooñaat bu ñëwee dana leen xool ba xam bu fekkee ne télé bi soxla na ko mu jël ca bu fekkee télé bi soxlawul ko ñoom ñëpp dañ leen di jëlee dañ leen fay jëlee te taxut mu doon lu ñaaw. Mhm. bu fekk ndax ñooña yàgg nañ faa defi demande yàgg nañ faa dem jëluñu leen ndax xam nañ ni moment yi télé bi soxlawu leen. waaw ñi nga xamante ni yokk na sa am xamoon na ni salaire ba moment yañ ko war a na yokk yokku ko mais dem na ba jeexal di wut loo xamante ni moom lay noppaloo ko. mu def ko ca xam ne loolu kontul kon loolu lépp du problème lii problème mooy ki nga xamante ni mooy ñëw nekk RTS bu dee ka fa nekkoon ay continuer na si deltu ginnaaw bu dee keneen ay ñëw loola na ko defaraat ba na mu war a mel mu mel na te xam naa ne dinañ war a am fulla jooju daal. loolu daal yaakaar naa ni pour teel koo signaler Sénégal yi ba nga xamante ni bu ko keneen defee dinañ xam ni kat kii lim def lii ko waral. Hmm. loolu doo si am solo mais bu loolu jëru ko ndax. ñi nga xamante ni jël nañ leen lépp xam nañ ni kii leen jël nii day yàq terrain bi rek. Hmm. moom la si jublu fubal nañ ba jeexal jël na ab ban sotti ko si terrain bi sotti si am ndox maasale ko si doggi tarxiis mu dem yoonam. Hmm. mais yow li li am ne am nga ci responsabilité. man na ko waxee woon. ah déedéet non non non man su ma teeloon a xam sujet bi moo da koy indi faaw ma wax topp mu wëral ma sa élément boobu yaa ko fi waxoon yow yaa waxoon président Macky Sall ni ko bu la leeree ni Sonko mi day ñëw balaa ñëw yokkal lépp. ma wàññil lépp wàññil ceeb nga ni woon na ko def sax téeméer kii euh, juróomi dërëm courant bi na ko wàññ ba mu kii nga xam ne bu ñëwee lu mu yokkaat sénégalais yi daw yuuxu waaw léegi nag directeur RTS loolu laa ko sant waaye léegi directeur RTS bii hmm. xëy na da laa seetaan déedéet directeur RTS boolu moo ko si woon man dund bi laa waxoon ay essance essence beeg lekk geeg naan mu wàññi ko bu ko defee ki ñëw mënu ko waa yokkaat si diir bu gàtt il faut mu bàyyi noona d'accord joxe hélas pare nga ci waaw hmm, hmm. Guy Marius Sagna de xabaar nañu mbir moo xam ne su fekkee ni loolu yi moo fa am maanaam ak njubadi daal la gu commencé dugg ci kër ga ndax waa ji moom leer na ko ne xam naa ne buñ ko buñ ko buñ ko changé am na lu mu fa installé ba pare bàyyi ko fa. waa alerte bi baax na. muy liggéey def day tax ñu xam dogal yi war a ñëw après li ko sabab. Mhm. parce que dinañ xam ni problème bi mooy ki nga xamante ni kii tey moo bëgg a waneeg mbaax. moom moo indi problème mu ñu war a am problème ëllëg. Mhm. waaw fekk loo xamante ne bi jàpp nga ni mbir mi munu ko nga ne naa ko def mbur kii ñëw ay yëfam du baax wala bu defee ñu ne ah kee defoon na. Mhm. teel ko yoole eh, daf ciy baax te defe naa ne fi ko Guy Marius Sagna waxee ni alerté ko ba nit ñëpp dégg ko. Mhm. Eh, am na solo. li doy waar nag mooy loolu. parce que jàpp naa ni état jamono jiñ toll nii. Racine Talla xam na ni poste RTS euh, poste la boo xamante ni bi kii defe naan dafa waroon a préparer yëf yi. Mhm. léegi nag man damay ragal mu nëbbee lii yeneen i jafe-jafe yu RTS am. lii loolu bu ko defee ñun ñu focus ci lii di ko lijjanti yokk gi fekk ne am na ak tappale goo xam ni moom lay muur maanaam lii mu nekk euh, loo xamante ni fa lay xolloo nit ñi fekk ne am na yeneen yu gën a garaaw lii loo xam ne def na ko. Mhm. kon bu gaa yi ñëwee nañu xam ni lii lenn la ci problème yi rek waaye nañ xool li gën a rëy jàpp naa ne am na leneen lu gën a rëy peut-être lu nekk ci ginnaaw lii. Mhm. waaw paren saa yi nit day def dara nga ne waa lu tax mu def ko fekk ne li tax mu def ko dafa am leneen lu muy nëbb. Mhm. waaye nag yow daf lay xooloo fi bu ko defee gars yi nekk fi naan RTS kii kërëb kërëb xam nga dugg na fi gën a fi lii du yoon. bu mhm. créer bruit. directeur bëre bu ñëwee tamit nekk ci loolu naan lii di régler problème boobu ñu génn ci biti eh, di ne lii jaaduwut lii lii lii lii fekk ne am na yeneen ruuxóor yoo xamante ni. Mm-hmm. Eh, moo gën a garaaw te boo régler ruuxóor yooyu rek di nga régler waa lii moom du problème. Mm-hmm. mais nañ xool leneen li nga xam ne mu dëgg. dëgg mooy problème leneen mën naa ne di nelaw ci biir. am na lu muy nëbb eh, na lu muy nëbb li muy li muy nëbb leneen la du waaye lii mu ne fàng. Euh, buñ ci focus am na leneen lu muy nëbb. Hmm. Mhm. day nëbb. kon yow boo doon looy lijjanti doo dem ci lële. déedéet loolu du problème <laughs> loolu loolu du jafe-jafe. loo war a jàpp ni moo war a ne ci biir. am na leneen ñoom xam nga ñoom suñu borom may na leen am nañ xam-xam gars yi buñ ñëwee dinañ observer. Mhm. dinañ xool léegi yow da ngay wax nii rek bu defee ñoom buñ ñëwee xam dinañ xam dëgg-dëgg lan mooy jafe-jafe. Hmm. dinañ la génneel ay scandale ci kanam tuuti di nga dégg ay scandale yu rey ca euh, yëf yi euh, xaaral tuuti rek lii mu def nii rek mooy wane ni am na lu rëy lu muy nëbb day rabaske quoi waaw. waaw. Mhm. c'est bon waaw c'est bon. foo ne woon maa ngi woon fii dama. <laughs> pare na <laughs> pare nga. aywa jërëjëf kon mi ngi noonu di euh, wax ni mm, am na waa ji fi doon bind ay xx euh, waaw Assane benn x la wax waxul x yu bari. Mhm. yàq seen koor gi ne hmm? maa leen ko sant sama yoon nekku benn ah, Assane la wax. waaw ah, ah, benn ñu bari. Bekkaay woon na ma dem sa di ma leeral affaire bi ma ne ko waa xam na Assane expliqué woon na ma. waaw Bekkaay moom moom sa ex lay nekk. <laughs> Bekkaay dit ku baax la. macha <laughs> muy doon information alors. <laughs> ku baax la ku jullite la. waaw ku am diine la wute na ak yow. waa déet waa <laughs> ah, déet déet déet bu dee formation lu si yoonu diine waaw non non bàyyi la dimbali di leeral say mbir yi nga waxoon waaw yow dama ñëw encore di ko nappaaje ne di bëgg koo dugal foo xamante ne bi newu fa <laughs> bàyyi tappale bi waaye ba kaay nekkul foofu ba kaay nit ku baax la aywa <laughs> jërëjëf